ولا نوم له ما في السماوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نوم له ما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil xalq sayidina wa xabibina muhammad ibni abdallah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin mbokki téléspectateur télévision Futur Média fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal àq di ñaan borom bi subhanahu wa taala moom mi borom jàmm yal nañu jàmmal yal nañu may gudd fan yal nañu may wér gi yaram yal ñu may itam sutura àdduna ak àllaaxira waaye yal nañu may itam mujj ku rafet mbokk yi ginnaaw bi nu santee yàlla mi nga xam ne sant ko du doy ci lépp rek lu mu mënti doon bu neexee alhamdulilahi rabbil alamin waaye bu ñu jaaxlee itam alhamdulilahi ala kulli ala kullin moom lu mu def rek noonu la maa faalal jalilu fa huwa jamil moom lu mu def ak ñun nuñ ko mën a tuddee ak nuñ ko mën a xalaate rek moo gën si ñun te lu baax rek lay def ndax xam ngeen ne moom yàlla borom bi subhaanahu wa taala huwa arhamur rahimin mbooleem koo xam ne danga am yërmande rek yàlla moo la ëpp yërmande gis nga xale ba ne woon na euh, yaay ja euh, ma xam nga ne tey suñ ne woon tey dañ may dugal safara wala dañ may rey rey bu metti ndax di nga ma yërëm mu ne ko ah wax dëgg yàlla dinaa la yërëm maa la dinaa la yërëm bëgguma dara lu la teg mu ne ko gis nga yaay noonu nga may yërëmee bëtu yërmande yooyu nga may xool yàlla moo la ëpp yërmande ah kay kon gis nañu fan yi dëkk bi ni mu jaxasoowee dëkk bi ni mu mettee ndax dara dara dara ëppul musiba dee dee moom amul dara lu ko gën a metti lu ko gën a metti ci kaw suuf yàlla bindu ko ndax bu xesee ba dee am rekk naqar am na ñàkk am na wéetaay am na jaaxle am na lu nekk rek loo xalaat ci mititu xol ci ki nga xam ne moo génnle àdduna am na doonte ne benn la rawatina nag bi ñu tolloo fi nga xam ne dañu naan une dizaine wala ñu ne une vingtaine wala trentaine wala quarantaine wala cinquantaine par jour ci benn mbir ci li nga yëg mais bokkul nag ak ci yi nga xam ne macha allahu taala yëgoo ko muy li nga xam ne ñu ngi koy wax ci mbas mi ni ñuy génne àdduna ci moom ñu ci ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala xam ne àjjuma ji weesu tàllaloon nañu suñu loxo ñaanoon ko mu may ñu taw tayit euh, taw ba euh, ñëw na mais ànd naag ay jéye ndax euh, lu mel ni suñu doomu Mourchid Iyane Thiam boobu ci génn àdduna ñu koy jaale mbokkam di ko jaale ay sëram nga xam ne ñun ñoo bokk waajur bu góor ñoo ko bokk parce que Ahmed Iyane Thiam suñu papa woon ñun ñëpp doomam jooju yàlla na ko yàlla yërëm ñu koy jaale Zahra euh, di ko jaale famille bi yëpp. Euh, bi ñuy ñaan taw ñaanuñu woon taw boo xam ne day ñëw indi ay àdd ak ay balaa mais teewul ba tey taw soxla nañ ko kon ñu ngi tàllalaat suñu loxo ginnaaw buñ ko tegee nag ci kilifa diine yi ak aada yi ñoom ñi nga xam ne ñooñu ñoom la ñu yaakaar ni ñooñu gën a jege suñu borom. ndax euh, yàlla moo ne ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yahzanun kon kilifa diine yi rawatina nag ñi nga xam ne ñoom lañu tànn teg leen ci suñu kanam ne ñoom ñooy suñu ay xulafa ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo jiite diine ji ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziyaara di leen balu àq di leen ñaanal yàlla fan bu gudd ak wér gi yaram mais di leen wax ne itam ñu yokk ñaan gi ndax jaaxle am na jaaxle am na lool sax ci lépp nag waaye lépp rek dañ koy delloo sunu borom bi subhanahu wa taala ndax moom lépp lu mu def rek nee naa moo gën te moo gën a rafet waaye nag tey euh, ginnaaw bu ma nuyoo Assane euh, sa Assane maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar euh, ci àjjuma ji di leen nuyu on yéen tamit di leen ziyaar ci àjjuma ji léegi boo toogee sax dangay mel ni ku xaw a jaxasoo doo xam sax fan nga doon tàmbalee ak fan ngay jeexale ndax di nga xalaat ne bala ngaa pare léegi benn message wàcc euh, ne la diw génn na àdduna muy lu kéemaande parce que man fii ma toog rek ci salle tent bi di wàcc ay ay nit ñu bari woo nañ ma ne ma ñu ngi sàkku ñaan ci suñu mbokk yi nga xam ne génn nañu àdduna te li si gën a raglu mooy amul kenn koo xam ne si ñoom benn la lay wax ba naan la benn ñaar ki bokk ak sama yaay pàpp wala ki bokk ak sama pàpp papa wala ki ma bokkal ndey wala ki ma bokkal baay wala sama borom kër wala sama doom wala sama jarbaat ba nga xam ne list bi li ma doon wax daaw ne list bi gudd na ndekete yoo macha allahu taala list bu ko gën a gudd a ngi ñëw ñuy ñaan nag borom bi subhanahu wa taala tàllal ko suñu loxo ndax moom moo ñu waxoon ne ñaan leen ma ma may leen kon ñun am nañ droit di ko ñaan waaye moom it lim ñu digoon ci may ñu nañu ko nangul nag te may nga ndax fi mu nekk moom il faut que nag ñu poñe ne ko li nga ñu waxoon mooy danga waxoon ne ku la ñaan nga may ko ñun tamit ñu ngi lay ñaan danoo soxla nga may ñu mbas mii di coronavirus jóge ci suñu dëkk bi gis nga euh, sa Xasan euh, dafa am lu professeur Seydi doon wax daaw man dama ko doon déglu attentivement dafa doon wax ne nañu ñaan rek ba feebar bi bu mu ëpp suñu loxo mooy nañu fexe ba cas yi bu mu ëpp vingt cinq trente su ko ëppee rek musiba dina am ci réew mi mu mel ni ci ay nopp yu tëx la ko doon wax waaye tey defe naa ne li mu ñu doon wax gis nañ ko ndax boo xoolee eh, ci tele yi walla ñi fa nekk bu ñuy wax ak yow nga gis ne benn benn malade bu nekk su nekkee réanimation lu mat 5 6 personnes ñoo koy tiim ku nekk di def li muy def yóbbu ci scanner wëlbatiku indi ñiy def perfusion ñiy def oxygène bi ñuy santaat yàlla itam ci oxygène boobu oustaz ndax démb maa ngi dégg ñu ne buñ ko jaayee nit ki di jours yi mën na nekk 2 millions 500 asan 2 millions 500 yombul ci ñu bëri fii ci réew mi commencé ci man mii toog. ba président de la république jël ko en charge yàlla nañu ko yàlla fayal def na lu rafet nag yàlla nañu ko yàlla fayal loolu moom acte bu noobul la parce que acte bu ñu soxla la même oxygène ñi nga xam ne nag nee na yeneen feebar la bokkuñu si waaye nañ ci boole ñëpp rek ndax fi mu nekk loxo jotatul ginnaaw Oustaz Assane ñu dellu wax ne oxygène boobu nga xam ne ay quelques millilitres la ñuy wax nga xool yow jullit bi yow doomu aadama bi bi nga juddoo ba tey ñaata nga consommé ci oxygène oxygène boobu ci sa biiru yaay mu commencé ba ba nga génnee tey ba ba ngay am benn fan weer at ba keroog ngay génn àdduna ñaata litre oxygène nga consommé te fayoo ci dara ñaata lumière nga xool te fayoo ci dara ñaata dégg ngay xool ngay dégg te fayoo ci dara ñaata dox ngay dem te fayoo ci dara sa cër yi di dimba di dem di di yëngatu nu mu la neexee te fayoo ci dara kooku nag bu la nee jaamu ma te soo ma jaamuwulee bés dina ñëw loolu yëpp dara dootu ci fonctionner dootoo consommer oxygène boobu ñu takk la gas dugal la indil ma la nga war a bàyyi xel ci sa bopp Oustaz Assane kon tey li ñuy wax rek mooy sant yàlla Oustaz Assane di wax ne suñu temu tey bi mooy dernier vendredi bi nga xam ne moo mujj ci atu jullit yi nan lañ ko war a dunde ak fàttali nit ñi lenn ci gàddaay waaye itam wëlbatiku delluwaat ci tawxiid asan dëkk baa ngi toj ndax charlatan yi dëkk baa ngi parce que nit ñi ñu ngi occasionné wu am na lenn nit ñu ñuy occasionné wu ci jafe-jafe ñu àdduna yi di joxe ay tur di joxe ay ñaan di joxe yu kenn xamul xale yi di riir di mbàmm di dem wutali ñooñu ñuy yàq seen àdduna ñaata ñoo ci ñàkk seen virginité kenn xamul nu mu toll ñaata ñoo ci ëmb kenn xamul te ñemewuñ koo wax xamuñu nu ñu toll ñaata ñoo ci nekk tey ñu jël seen bakkan ba ci xale bu jigéen bii mujjee génn àdduna Oustaz Assane mu nekk lu méttee métti kon Oustaz Assane bala ñoo dugg si njaal yi dama lay jox nga nuyoo ñu jël nuyoo kilifa yëpp rek dëxëñ ko kilifa diine yëpp jox ko suñu doomu xol suñu doomu bopp Cheikh Mamour Essa mu jox ko ñu mu ko war a jox ñëpp ñu wëlbatiku nag am quelque jaal yoo xam ne mënul ñàkk ndaxte ku xool ci imaam Ousmane Gueye mi nga xam ne def na ci rajo walla télé lu ëpp cinquante ans laay wax te alhamdulilah ba bés bi muy dem mosuñu cee dégg faqastaloom mosuñoo dégg juumte mësuñoo dégg ifta bu mu def parce que lu nekk da ko doon teg ci teguwaay kon Sénégal yépp ñu ngi jël njaal mi jiital ci imaam Ousmane Gueye mi nga xam ne tey nee naa man jaxle naa lu tax waat RTS defaluñ ko renderuñ ko hommage lu tax génnewuñu fotoom teg ko ñëpp jàkkaarloo ci di ko ñaanal ndax defal nañ ko fi ñoo xam ne wallahi azim li imaam Ousmane Gueye def ci réew mi genn wàllartem defuñu ko bëri na ko gàggantiku ci sa diine muy mag mu yaru mag mu baax mag mu am taraanga maa ngi fàttaliku année bi may dem bi ñuy dem Égypte di di defi benn formation moom moo nekkoon suñu chef de délégation këru sëriñ yëpp seen doom yi ci lañ bokkoon ñu jël benn billet Euh, euh, bi euh, première classe ñu ne chef délégation bi booba Air Afrique la moo koy voyager mu gestu daan ne comme délégation bi Seyda Fat Bintou dong ciy jigéen kon terale naa ko billet bi na dugg première classe ñun ñëpp ñu dem économique man booba sax damaa xam luy première classe ak économique man booba naa dugg ci avion bi rek ma daal di jël ñu yóbbu ma première classe te moom moo ko moomoon xoolal première classe la fa nekk ci confort la fa nekk ci ay xéewal mu jox ma ko moom mu dem voyager loolu mooy li nga xam ne rek man mun naa ko si rendre waxuma nag bañ fa nekkee waxuma bi ñu ñibbisee waxuma ba keroog bi may mujjee waxanteeg moom imaam imaam Ousmane Gueye ay mbaax mbaaxam su ma ko waxee tey su moytuwulee émission bi duñ ci mën a dolli dara Oustaz Assane ma jox la kàddu gi waaye bibliothèque lakkati na waaye monument bu mag daanooti na Moussa Assane Seck. jërëjëf jërëjëf yàlla bàyyi leen fi ñun yàgg lool si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ziar bu baax ñi nga xamante ne bii itam ñoo ngi topp ci émission bi am ñoo ngi jot ñaanal leen ñoo suñu kàddu yi daal di leen fekk si jàmm yàlla leen yàlla subhanahu wa taala sàmm leen aar leen laax leen fu yàq leen si daraja Seydina Muhammad sallallahu euh, di am mbégte rek Seyda jàkkaarloo ak yow. Mm-hmm. Euh, di wax rek comme nga wax. ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mbas mi yàlla ko fi yàlla jëlee waaye itam ba xel yëpp ak xol yëpp delluwaat fa mu nekkoon Seyda mm. euh, li ñu fas yéene waxtaan ak tey mooy li nga wax dafa jëm si wàllum li nga xamante ni moom moo di euh, euh, naka la ñuy saytoo ak bi nga xamante ni daanaka jeex na ba noppi mm. muy suñu calendrier ñun jullit ndax wax nañ fi aljuma bi passé mu nga tàmbalee woon fa yonent bi ak ñeent fukk euh, ak. ñeent fukk ak ñett. waaw ñaar bi mooy jeex. 1442 waaw ak ñeent mhm. mhm. la ñuy jëm 443 la ñuy jëm. Mhm. Abdoulaye am na photo bu ñu leen alxaaji Ousmane génn ko. Seyda. li nga def nii. barka démb dama toog sama kër. may seetaan RTS. ma wax lu mel noonu sama xel. ma ne depuis lors gisuma fenn fu ñu ko rendre hommage fu dul si wax ko si journal ak yu demee noonu. bu bu bu sew. waaw te te dafa am loo xam ne si réew. bu fa nekkee. ba yàlla dogal mu jóge fa. nit ñi dañu war a xam ne comme li nga wax am na lu fi jóge. te ku jamono ba télé bi fi benn télé am nekkee muy ORTS ku ne guddi aljuma mii noon nga xaaj Moustapha Gueye yal na yàlla guddal fanam may ko wér xaaj Ousmane xaaj Ousmane xaaj Ousmane xaaj Ousmane Gueye moomu nag tey moo wuy ji suñu borom muy nit ku baax di nit ku yiw di nit ku sell ndax am na luñ si xam nee naa euh, duma ko fàtte mu juillet quatre-vingt-dix-neuf mm-hmm. réponse bi jóge Tunisie ñu accordel ma bourse pour ma jàngi. Mhm. moom moo jóge grande mosquée ñëw indi ko ba suñu kër tekk sama loxo way jóg. wallaahi ndax mbokkam la. mbokkam la mhm. xaritam la. Mhm. ba pare ñu bokkoon waar wi ñu doon nekkeen di si bay muy waaru lislaam yàlla leen yàlla xaare aljana ñoom ñëpp ndax oyof. ndax lu mel noonu am na ba tàyyi nit jël téléphone am woote rek. nangam xew na jaar fi wala boo amee jot nangamal nangam. mais def ko moo ñëw fekk ma jóge woon sama école bu ndaw ba ma yoroon doon jàngale sa yar bi. ñu dajee si bunt bi mm-hmm. asan na nga def maa ngi fi eh, si jàmm ani ma ne ko yaakaar naa mi ngi si biir ñoo duggandoo si kër gi mu génne saag bi ndeysaan te li nga wax yar bi mm-hmm. laaj asan nee ne mag sax kenn du wax mais yiiw gi Seyda mm-hmm. te dafa am solo mooy li ngay wax wax na ba dem kenn ma su dégg mu wax toj toj kenn ma su ko dégg mu wax sofaan kenn ma su ko dégg mu wax loo xamante nii xëy na ku ko dégg sa xol du neex mais yar yiiw teggin te lislaam ak kersa te loolu mooy lislaam alxayaatu subatun min al iman leen bi salaa sallam waxoon na waxoon te loolu moom la xaaji Ousmane fa tabarakallahu dundee ak ñun te da nga wax lu am solo ñu bari gàggante ne leen si diine te jógul fi mu toog te bu waxee ñëpp ko bàyyi ñëpp ko bàyyi ñëpp bàyyi ko xel te loolu dafa am lu muy symboliser li muy symboliser Seyda foofu laa lay delloo kàddu gi mooy mbaax mu ngi fi mm-hmm. yiiw mu ngi fi lu lu rafet mu ngi fi kon nit ñi nañu xool si ñu mel nii roy si ñoom dama waxoon Seyda royukaay yaa ngi fi waaye ñu ngi dem de ñu ngi dem ñu ngi dem nañu jéem a rot si ñoom balaa ñoo raaf balaa ñoo jeex balaa ñu toog dootuñ leen gis ak ay gët kon di massawu njabootam xaaja Ousmane Gueye sa barñi di leen ñaanal yàlla may leen xolu muñ fa mu leen féete woon yàlla leen fa borom bi subhanahu wa taala féete waaye li ñuy wax rek yàlla na ko yàlla lafal cat ñun de tiituñu si moom wallahi alazim waaye yàlla na ko yàlla lafal cat mm-hmm. diina ji mu doon liggéeyal mm-hmm. alquran ji mu doon liggéeyal ak cofel ji mu amoon si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko doon tudd da gis ni ni ni kanam gi di bellee te loolu cofel mënu ko weesu yàlla na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teeru kon Seyda tam mm-hmm. bi daal mu ngi noonu tey li ñu fa seen a waxtaane euh, mooy la musulman bi nga xamante ni jeex na tey mooy dernier vendredi bi yan jàngat dañu war def si at bi weesu ban taxawaay lañ ci war a am autocritique bi mooy li ma doon wax sànq sama xutba jumaa bi rek mm-hmm. nañu def muhaasabatu nafs mm-hmm. ci at bi ñu génn mm-hmm. xool suñu bakkan lan la ñu def te jaaduwul lan la ñu doon bëgg def loo te jaaduwul ak lu ñu fi def loo xam ne jàpp nañ ne dinañ ci am ngërëmal yàlla ñu góor góorlu si te sofaan ñu jéem ko bàyyi te ñaan dëkk at bii di dem yàlla na yóbbaale corona yóbbu jafe-jafe yi yóbbu njaaxare yi yaa ngi koy wax léegi la ma nit woo ne ma rakkam mu ngi nekk benn hôpital fii mu ngi nekk si entre la vie et la mort. dama dama doon xalaat sax ndax rataw ma jumaa ma ne ko si la mu ne ma ngeen defal ko ñaan. te xale bu jigéen la. 30 ans sax bu ko amee si lay toll. te mu ngi comment kon nit ñi nañu gën a góorgóorlu sooy daal. dama lay delloo kàddu gi gis nga li ngay mujjee. Uh-huh. bu ñu si yegg see ñu taxaw si. Uh-huh. mooy tuub dellu si yàlla. Uh-huh. tafaddal yi. Uh, jërëjëf Oustaz Assane yàlla na la yàlla may fan bu gudd may la wér gi yaram Oustaz Assane vendredi bi passé mm-hmm. tey maa ngi fii ak lu mat xaw ma ñaata nit ñoo xam ne vendredi passé mhm. ni ñu toogee nii tey di seetaan di mhm. di def tele ñoom ñu ngi toogoon di ñu seetaan mhm. te dara jotu leen woon tey ñoom ñii ñëpp ñu ngi leen di yónnee fukki lixlaas ak benn man dama ne jàngat bi gën a mag rek mooy at mii di jeex jeexaale ñii ñëpp ndekete ñii ñëpp duñu fekkee déwén ñun ñii tamit ñoo ngi toog nii vendredi bii kan lan moo ñu wax ne vendredi prochain dinañu fi fekkaat waaye yàlla nañ ko yàlla defal rafet njortu rek rafet njortu rek ba tax na keroog ñu bari dañ ma wax ndey saan am na sax ñoo xam ne dañoo jooy bi ma nee nañ leen waaj nañu leen denc seen kii man maa jël benn valise def ci samay sëru njaago def ci sama ay armal def sama cuuraay ak sama ay yi may soxla yépp ne leen lii moom naa ko teg nii bu ngeen gisee lu xa lu ngeen xamul ah ngeen ubbi valise bi xam ne dencukaay yëpp sa kanam sa kanam ca kanam kanam loolu la ñu ñaan yàlla mais ku nekk ku nekk rek ba Amina Amina sax ndeysaan sànq moo ñëw tey nag moo ma doon maquillé xam naa ne moom maquillage bi tey jekk na lool ndax Aminata Mbaye comme tey dafa war a ñibbi daara dafa ñëwoon ci feet bi war a ñibbi euh, ca daara aji Binta Thiaw ba tey nag daf ma doon neexal ne ne ma waa xaaral ma ñëw maquillé la comme comme yow ñeme woo maquillé sa télé ba léegi nag maquillage bi yëpp mooy du dem daara rek mais ma ne ko waaw waaw ma rek waaye bu ma ñëwee jàmm bu soobee yàlla démb na war a ñibbi ba léegi damaa ngi koy uuf di ko neng nengal ndax waaye nag xam naa la muy jëli lan la ñu ñu ngi ñaanal yàlla daara jooju yàlla na yàlla yokk ko waa daara ji ci seen bopp tey Adja Awa Diop dafe madame dafe xam nga Cheikh Abdou Khadir dafe dafa génn àdduna Mm-hmm. muy borom kër ci soxna Awa Diop Daffé Awa Diop mariste Awa Diop alquran Awa Diop bëgg lu baax bëgg nitu diine yi nga xool yàlla ko yàlla yërëm mm-hmm. nga xool alaaji Adama Ndiaye ci këru soxna as Assu Mbàkke Ngom mm-hmm. ma Assu Ngaawaan euh, borom waa AFTES ñoom it euh, ñu ngi koy ñu ngi leen di jaal Awa Ndumbe xam nga awa ndumbe euh, moom it ñu ngi koy jaale ñoom Yacine ci seen bopp seen frère euh, alaaji euh, Alioune Sarr hmm. euh, soxnaam di Ndeye Ndiaye moom it bokk si ñi nga xam ne dañoo génn àdduna oustaz Gelaajo Gelaajo hmm. démb dama toog sama kër hmm. ñu teg kees bi ma bës sama télé mu ngi nii al Gelaajo masha allah ma xool lii mu sol ni mu rafetee ma xool otoom bi mu mujjee jënd ni mu rafete ak démb kees biñ ko def encastré ko ñoom alaaj Cheikh Oumar Anne tiim ko ñoom Abdoulaye Elimane Kane tiim ko ñoom ñoom ñoomin euh, Samba Diobel Ka euh, Thierno Madani ma xool kilifa yëpp tiim ko mu doon taxawandoo ak ñoom xam nga ni kii amul benn maladie jabetul tension wul deful dara mais mbas mi ci boppam moo ko yóbbu coronavirus ci boppam moo ko yóbbu nga gis fi ñu ko def nga xam ne dañ doon def niw defar ba mu rafet jël sa bra mais nga xool moddu kees bi ñu ko def rek ma tudd yàlla yuuxu ma ne laa ilaha illallah hmm. tey ana oto yu rafet yi nga xool façon salon yi bu doon def ay ay ay ay ay émission fi muy toog nga xool taraanga ji nga xam ne doon na ko bokk ak ñëpp ana mu tey euh, Oustaz Assane li gën a raglu xoolal ñun suñu koñ Awa Diouf dafa ñëw wooma alo Euh, yónnee ci groupe bi sama rakku jëkkër dafa gaañu bala ñoo dugal loolu mu woote waat sama sama rakk man tamit génn na àdduna Yacine Diop daal ne ah man tamit de léegi laa doon woote sama frère moom it génn na àdduna Astou Aïdara euh, madame Aïdara man it jëkk euh, frère Aïdara génn na àdduna mel na koy mbuub sëram ak frère génn na àdduna <laughs> maam Jaara ma ne ma man tamit kat sama goro dafa génn àdduna ah ah xoolal ma ñii ñëpp yaayu Adja Daba Touré ca fële di di ak boroom këru Saleh Samoura ba mu génnee àdduna ak léegi jabaram mu ngi tee ji génnagul nga xool yii yëpp yëpp yëpp nga xool aana démb la nekk ci seen dëju frère bopp di Alioune Sarr tey aana woo ma ne ma ah man kat sama sama sama xarit Mamadou Paate Bari ci kër Sampaate nga xam ne tudde na ma doom ju am 16 ans moom it génn aana Njaay mi kii ma lay wax ni cousin la Alioune Sarr jëkkëru Ndeye Ndiaye di frère ci Khady Sarr Khady Sarr mooy ki ñu toogaloon keroog noonu ca ca ajjuma ji passé frère am bi te seen frère gaañu na yaa 4 4 mois wala matagul sax 4 mois 10 jours la ah kon Oustaz Assane ba pare am ñoo xam ne am nañu fitu Oustaz Assane nekk ay médecin wala ñu nekk ay borom porteur de voix taxaw ci tele bi di décourager xale yi pour ñu ñakku ci di wax naan feebar bi amul Oustaz ñooñu ameen nañ ma àq boo xam ne am na ci koo xam ne damaa toog ba si yàgg ma koy xool may jooy ndax booba kër naa sama waa kër bañ ne ma maman kon léegi ñu góor ñi ñu jigéen ña moom mënal naa leen dara ñakku nañu waaye ñu góor ñi lànk nañu mujj gi sax ñu naan ma ndax gëm nga yàlla xam nga lan la def ñoom ñëpp bi ñu d'accordé médecin boobu dafa def discours ba pare rek ku nekk indil ma téléphone ne ma voilà yaa ngi nii di ñu wax nañu ñàkku ji kii de médecin lay li mu xam yow da koo xam te kii mu ngi nii moo nekk fii nàngam nee na ñàkku yi moom ñakkuwul ah bu fekkoon ne moom ñàkkuwul mais bu ñàkkuwulee moom affaire boppam. Seyda mosuma la dog. Ah? dama lay dog nga baal ma. yàlla bu la yàlla dog. damay bañ. Mm-hmm. sama li ma sama li perte fil bi maanaam li ma bëgg a génne mu rëcc ma xam nga tey dafa am loo xamante ni si àdduna. suñ borom subhanahu wa taala daf ko wax euh, unanimité masul am si dara ñëpp ne waaw nangam masul am si dara Macky Sall mii mooy président de la république bu Sénégalais yëpp ko votel waaye am na pourcentage bu ko may mu mën a jiite réew mi tey uh-huh. teewul tey képp kuy sénégal mooy sa njiit loolu la yàlla dogal uh-huh. ba ker balaa leneen di xew uh-huh. du dëgg kon tey képp kuy taxaw naan bu leen ñàkku wala bu leen def nangam yow nee nga nit ñi bu buñ ñàkku duñu tudd tur seetaan naa li ngay wax te yaa ngi takk masque looy doy masque takk masque naa nit ñi bu leen ñàkk kon yow dindil sa masque nga dox sa dox dox sa dox dëgg la te bu sa bopp méttee bul naanati aspirine bul naanati ba déedéet xam nga looy def sax waaw tëj fa ngay liggéeyee mm. ku ñëw nga nekk demal yàlla baax na te yaa ngi ubbi sa cabinet mm. ku ñëw nga jël ko xool bind ordonnance mu fay la nga def sa gafaka mu dem yoonam nga dem sa yoon mu dem uti ji pharmacie uti ji ay garab di wut ñaan yàlla may ko tan beneen bi boo waxee ñu ne vaccin dafa gaaw vaccin dafa gaaw vaccin dëgg la xam nga lu tax loolu uh-huh. tey jii nii bu njëkkoon uh-huh. nit day nekk bitim réew uh-huh. lettre ngay bind balaa si balaa kaa jot. ñaari weer ñetti weer. ñetti weer du dëgg wala télégramme. wala télégramme wala ah. bu njëkkoon da ngay woote kër gu am fixe si koñ bi damal woowu diw. ñun Cees kër Babou te moo amoon benn téléphone. kuy wootee dañ doon rang pour dem wuyu ji fa téléphone. jeex na benn téléphone Thiès Grand Thiès jeex na waaw ñun ñu ngi daan uyoo kër El Hadj Mamadou Ndoye waaye El Hadj Mamadou yàlla na ko yàlla jéggal. wallaahi yërëm ko ñuy ziar gandoo ak njabootam gi yëpp. Mm-hmm. Eh, xoolal. tey da ngay toog vocal nit ki jot si léegi wala appel vidéo wala texte instantané jamono day dox kon technologie buy dox vaccin bu daan am ñetti at pour ñu defar ko wala fukki at wala juróom-ñaari at kon tey te tey jii bu njëkkoon sareetu mbaam après deux chevaux après nangam léegi nit ñaa ngi si métro R4 R4 léegi nit ñaa ngi si métro similaire Tambacounda boo ko daan def 4 heures de temps boo jëlee métro 35 minutes une heure de temps maximum buy daw 400 kilomètres à l'heure am na kon jamono day dox nit ñi nag il faut ñu sérieux parce que feebar bu ñu toll du am jaaxal àddina mbas am ay nit bëgg a toog naan bu leen ñàkku ji bu leen nangam ma ne nit ñi nañu dem ñu vacciné wu xam nga lu tax vacciné wu dem ñàkk a wu dem waaye nañu sabablu maanaam sabablu mooy yàlla moo ne nañu laaj borom xam-xam yi nañu xool unanimité ñi ëpp pas unanimité sax mais ñi ëpp li ñu wax ñu dem ñu def loolu réew nag dafa am na muy doxee parce que du am ay yoon am ay charte am ay loi am nangam ay am nangam ay nit bëgg a jóg di dénigrer loo xamante ni teguñu ko fenn man kay boo demee bul vacciné wu yow moom dootoo pikiir ak pikiir bu mu mën a doon da koy teg ci suuf. masque gi ngay takk da koy bàyyi. jël gel bi teg ci suuf ba pare ne ma bul ñàkku yooyu yëpp doo ko def mais doo takk sa masque di laal sa gel ba pare naan nangam ak nangam xam nga lan la. lii nit ñi di wax rek léeg coow yi nag li koy indi mooy. te ñu bëri nag soo xoolee ñàkk farante rek. ñi bëgg bokk te boole wuñ leen faral parce que kii fi nekk si ànduma moom rek. waaw mooy li ma ñi ñi bëgg bokk te boole wuñ leen rek. li olof di waxaan coow li si bënnu teen bi. ñi amul baag la ñooy indi coow li. nit ñi wallahi azim. Mm-hmm. du ma waxantu. Mm-hmm. dama jiite jumaa léegi sama oto la ma nit woo maa ngi koy wax ne ma sama rakk amagul 30 ans jigéen la mu ngi comment te Covid bi la. te si diggante bi sax dafa ëmboon waaye dañ ko mujjee opéré dindi xale bi mu dund vingt 24 heures xale bi dellu moom mu ngi xeex ak maladie bi démb am na 30 ans koo xam ne jay na ba pen da ngay tudd sax ay tur ñeesam bu mu yar HLM Grand Yoff ba HLM Grand Yoff yëpp a ngi ma dégg Daba Ndiaye moo dugal tàgge bi grossesse la yóbbuwaale ak Covid bi. ami a ngi nii woo ma uni uni uni euh, renefis la nekk nee na ki bokk ak yaayam benn baay Xadijatu Sow ak ki bokk ak yaayam benn ndey muy euh, Assu Mbay nee na ñoom ñaar ñëpp génn nañu àdduna nii mu ngi nii mu ngi mbuur ñëwagul Dakar kon nag Assane moo tax nag affaire bi daal amul salaali amul waala xam nga yow kenn joxu la un franc man kenn joxuma un franc pour ñu ne nit ñi dem leen vacciné wu mais dañu yor ay xel yàlla dimbali ñu ñu jàng mm. wala am lu ñu yaakaare bokk ci xam-xam mm. kon ñun suñu devoir mooy ñu sensibiliser lépp luy lor askan wi dañ koy xeex lépp luy jëriñ askan wi dañ naan askan wi dañ jóg parce que loolu li seen njëriñ si nag l'islam nag li mu wax mooy fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun dem leen laaj boroom xam-xam yi bu ngeen xamul mm. médecin yi nag ñoom ñoo nañu nañu dem ñu vacciné wu mais di dugal ay video ay nangam ay nangam ay complot ay lii ay laa ay lii ba leneen fekk la si yàlla am na lu ko. waaye Oustaz Assane itam ñun tamit ñun ñi nga xam ne ñu ngi jàngale diine nañu moytu itam euh, lenn li nga xam ne xew na ndaxte ndax vie vie yu bëri léegi ñëpp dañoo changé seeni méthode jàngale ci joxe ay tur joxe ay dog baax na mais xale bi nga xam ne jullee matul euh, fatiha mokkulul. léegi yow soo ko nekkee mu ne ah du dañ ne yaa salaam boo ko defee 111 ñu baal la sa bàkkaaru nangami at di nga am tuyaaba kii keroog am na kenn ko yaa ngi toog sax defe naa ne mbokk mi ko doon wax. Mm-hmm. mu ne ma mu ne ma man dem naa umra te nee nañ ko umra ba umra bi dellu si <laughs> dootoo am bàkkaar kon kon léegi man at bi yëpp jarul may julli parce que duma am bàkkaar xam nga loolu loolu mooy euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jéggalu bu baax Oustaz itam am na phénomène bu doy waar boo xam ne ñu ngi koy wax suñu xale yu jigéen yi suñu doom yi. Mhm. mooy affaire sëriñtu. Mhm. gis nga ñu baal ma lu nuyu moo moo moo wone boppam. Mhm. xam nga xale bi génn àdduna di Lobe Njaay sëriñ bi nga xam ne moo ko faat. bu fekkoon ne bi muy dem àndoon na ak càmmiñam wala mu àndoon ak yaayam kon kooku du ko faat dëgg la ba su dee du ba su dund. mais bu njëkk ba yow boo takkoon téere. wala nga diwoo saafara sa yaay moo la ko wutali wala sa papa mais léegi Assane na nga dem ci kër yi nga xam ne foofu la ñuy seetloo xale yu am 15 ans 16 ans ñoo fay rang ëpp téeméeri nit wala cent et quelque ak ci télé bi ak ci kii bi di woote di di di wutal seeni bopp ay seet ak ay listixaar di di di wut ay butéelu saafara ñu ngi ci sarax yi saraxu bidaa yooyu ñu ngi ci rey ñu ngi ci ci ci ci sacrifice parce que gëmloo nañ leen ne alxuraan dafa yéex mais féticheurs yi li ñu yor moo gën a gaaw te wala yuflihu saaxiru xaysu ata hmm. la yàlla wax et puis li gën a raglu oustaz mooy ngay dem yóbbaale xaaw wala nga yóbbaale béjjën wala nga yóbbaale pettaaw wala nga yóbbaale fas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne laa yantiqu anil wax nee na képp man maata wa allaqa tamima faqad ashraka billahi képp ku dee yóbbaale tamima tamima moo xam béjjën la moo xam fas la moo xam xam euh, deru gaynde wala bukki wala jësig la moo xam euh, lu mu mënti doon ci xeet yooyu nga takk ko sa yaram deewaale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne du wax ci neen nee na bokkaale nga yàlla te ku bokkaale yàlla sa ëllëg mën naa lëndëm kon ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñu ngi dem hôpital su su si Covid bi nii dëgg la bañu ñu ko baxal kinkilibaa naan wala rat wala ngeer suñu ndax ku nekk lay ñor ca suuf sa nga juddoo mën na laa faj man mii nee naa leen sama njaq laa yor sama cin lu ndaw laa yor rek teg ko ca gaz ba bu ma jàppee ñu ne ñu ne nañu def jinjeer naana ma daal di daw jinjeel ba naana ba sànq xool nañ ma ba si ak man leen man ne dafa mel ni ci ay pax laay dox ñu ne ma wàññi sax sa ñaq yi ngay naan man moom ma déggaat léegi ñu ne buy ak euh, euh, euh, nu xorom fal nu mu tudd. xorom xorom polle ma di dem daal di sakkaat ca xorom polle ba daal di baxal naan ca ngoon nga ñu ne xottu du teel fi mu nekk niim lañ ma digal nii neemaa laay wër parce que nee nañ ma naaj ci suuru xam nga loolu bokkul ak ki ñëw naan la dañ laa liggéey dañoo tibb sa tànk. dañ laa sànni korte li ana ana Covid lu mu jotee korte ana Covid lu mu jotee euh, cat ana Covid lu mu jotee loo xam ne virus la bu ñëw dugg si yaramu doomu aadama yi di rey ay nit ñu wone ba wone réanimation lañ fay dund démb ba tey aussi assan maa ngi lay wax ne maa ngi régime dooma laaj bi tax may régime damaa gis malade bi biñ ko yëkkatee ci ambulance bi gàddu ko teg ko fi muy defee scanner ma xool fi ñuy defee scanner ni mu xat ah ni si guddi gi ma xool yëkkati bi xam nga boo diisee infirmier yi dina yëkkati xam bañ lay yéen foofu doo fa yegg non non non mais ñun ñëpp sax. parce que nañ pataa tamit duñu régime man suba ba tey maa ngi régime maa ngi ci koor gi maa ngi régime nga xam naa ne Binta Maam dina ma ne sa fit bi Binta Maam bi lay sama fit dem na ak Lidia Fall nee nañ may ay booy dalal sa xel demoo fenn waaye régime baax na ndax xam nga ni euh, réanimation ni ma gisee ni ñu leen di toppatoo boo fa pataawee. Assane <laughs> Assane boo pataawee da nga leen di sonal. waaw mais xam nga. xam nga euh, kii nu mu tuddati euh, euh, Seyna Aliou doon na wax ne yàlla nañu yàlla may ñu jeex bala ñoo dee <coughs> ndax yaram. bariwul njëriñ imagine que nga nekk nii ñu dina yëkkati nga dis kan na fàtti ñëpp ñu dina sank kenn mënula la wëlbati ndax pata ñu ñu ñu ñu di la suul nga xat. luñ la gasal du doy yooyu yëpp dañ ciy bàyyi xel Assane man daal wax dëgg yàlla neexul ba neexul ah xanaa rek ñu ñëw ci thème bi daal ci gàddaay gi. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax ndax ba waaw nga dugg foofu la ñoo dugg si gàddaay gi balaa ñuy dugg si gàddaay gi si du mm-hmm. jëm si wàllu njabar. xale yi xale yi njabar ak njabarkat yi ak xale yi. waaw gis nga boo demee si alquran yàlla moom kilifa la goo xamante ne nii ku ko bàyyeeg sa bopp mu téye la. ku ko wan gannaaw mu bàyyi la wa man yatawakkal ala llahi fa huwa xasbu wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaytu laa yaxtasib laa yaxtasib sadaqallahu alazim gis nga nit ñi il faut ñu xam kan mooy yàlla si waxin <laughs> maanaam li yàlla ji moom ñu jox ko ko soo dee jullit nga nga gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. da ngay gëm li la yàlla wax ak yonent bi sallallahu alayhi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne. Mhm. nit bu amee ñeent fukki fan. si mhm. biiru ndeyam. Mhm. ñu jéggal ma si kàddu gi. lépp lu mu war a am lu mu war a am. yàlla day yebal benn malaat naka demal. góor lay doon wala jigéen. ñeent fukki fan. ñeent fukki si sa biiru yaay. góor wala jigéen. wala ay seex. wala day njool wala day gàtt mm-hmm. wala day xees wala day ñuul mm-hmm. wala day gudd fan wala day gàtt fan mm-hmm. wala day am wërsëg wala du am wërsëg wala day judduwaalee feebar wala du judduwaalee feebar yii ngay dund yëpp yëpp yëpp ba dund ba bind si bindaale si ndax ëllëg àjjana ngay dem wala safar allahu akbar moo tax yonente bi sallallahu alayhi keroog bi mu waxee loolu saxaaba yi radiallahu anhum dañ na ko mais kon kay ñun jaratul ñuy jaamu yàlla ñu dem toog noppal ko xam ne lii fi ñu jëm yàlla dugg bindal nañu ko ba pare. Mhm. mun leen dee déedéet i'malu. Mhm. inna kullun muyassarun limaa xuliqa lahu ku si nekk yoon li tax yàlla bind la daf la koy yombalal mhm. mais tey jii nii yooyu yëpp ndëkk soo ko xamee. ba pare ëlbatiku yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat la ne boo solee sa dàll bii dem si maaman wala seetkat wala féticheur ne ko dama bëgg nangam ak nangam ak nangam ak nangam wala seetal ma nangam ak nangam ak nangam nee ne soo demee rek dem bi rek loo julli ñeent fukki fan yàlla du ko nangu. allahu akbar wax nañ imaginer waxuma sax benn julli benn ràkk bu yàlla rejeté. nga dem ñeent fukki fan. te xamoo ñeent fukki fan yooyu ndax di si rëcc wala doo ci rëcc. loo julli yàlla du ko ah. nangu. te loolu bu yàlla nanguwul sa julli sax ñaan moom demal nga toog. kon moo tax ñuy ñaan rek mu tëdd. kay yaa ngi dégg. Mm-hmm. du yam foofu. Mm-hmm. nee na nag soo demee. Mm-hmm. nga laaj ko. mu wax la nga ne ko dëgg la. nee na weddi nga li yàlla wàcce woon si man maanaam yéefar nga. allahu kon ndekete nit dina génn si diina ñi te du ko yëg. allahu nañu moytu féticheurs yi. nañu moytu seetkat yi nañu moytu ñi naan maa mën la lii ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu def ko. wallaahi mënuñu koo jeex. boo amee soxla. demal lii ci ay léemaay. lii ci ay ay ay zikr. mënuñu ko jeexal c'est parce que nit ñi demuñu jàngi seen diine. Seyda hmm. moment yi ñuy def ci téléphone. waaw. xam nga barke démb yàlla du nit am nga bu yàlla waxee ci alquran iqtaraba linnaas xisaabuhum wa hum fi gaflatin muridun laahiyatan qulubahum wa asarru najwa allahu xam nga boo demee si aaya boobu sayda dafa am benn jàngat bu ma fi def yaakaar naa ne si suuratul xajj euh, la sa njëlbéen bi suma ma yàlla di wax ne nit ñi bés bi ñu leen di atte mu yowmal qiyaam jege na yaa ngi dégg waaye ñoom bàyyiwuñu si xel. bàyyiwuñ ci xel ñu ngi ci càggante. mais mhm. laahiyatan qulubuhum wa asarru najwa xoolal man ma ne bu doon jamono ji dañ koy tekki dañ naan ñu ngi seen téléphone yi téléchargé ay jeux di jouer. di jouer laahiyatan qulubuhum ah, ay mag ay mag te li si xool li si xool. Mhm. mooy génn si si si si si si xar kanam cër yi di ko jëfe wa asarru najwa ña ngay vocalante. Mhm. waxi jàmbur. kasaaw kasaaw kaa ah. yu amul benn njëriñ. léegi nag bu ñu tolloo ci jamono boobu nit ku nekk nag dafa am loo xamante ni yow loo xamante ni boo boo fa demee boo jullee ñeent fukki fan buñ la ko nangul bu ñu la waxee nga gëm génne nga sa bopp ci diina ji yonent bi moo ko wax. yonent bi nee na nekkatoo jullit yow yaa ci def sa bopp waaye diina ji ba mu rejeté na la. parce que association l'islam bu doon association. yow ah. violé nga règlement intérieur ba génn nga sa bopp. tu t'es auto exclu. Uh-huh. yow yaa génne sa bopp léegi nag kon ndaw ñi nañu delluwaat ci yàlla te xam ne. charlatan boo dem si moom. Mhm. maaman boo ban boo dem si moom. koo yaakaar ba dem si moom si ñooñu laa wax de. Mhm. Mhm. wax ma mag ñu baax ñii di ñaan. te yàlla rek tax mais ñooñu laa wax koo si yaakaar ba dem si ñoom bu dee jëkkër ngay wut am na jarbaat bu amagul jëkkër. <laughs> bu dee kër ngay wut boo demee moom dafa loué. moom si boppam dafa loué. yaa ngi dégg bu fekkent ne alal ngay wut moom bu ko gisoon doo ko fa fekk ndax moo la ko gën a bëgg moo ko fa bàyyi wut alal ñëw encaissé la ak sa morom pour am lu mu def si gafakaam bu fekkente ne tukki nga bëgg rakkam a ngi si kër gi moo koy jàppale di ko rotal ay njaxam tukkeegul moom si boppam amagul passeport bu baax yaa ngi dégg bu fekkente ne liggéey nga bëgg magam a ngi sa dëkk ba amagul liggéey ainsi de suite kon nit ñi nañu yeewu ñu xam ne uqdul hawaïja bi izzati nafs fa innal umura tajri bil maqadir yonent bi moo ko waxoon fa laa lay delloowee mu ne lu ngeen di wut wute leen ko dignité wutee leen ko personnalité wutee leen ko njub ñu ne ko lu tax mu ne yàlla noppi na démb laata tey di ñëw Seyda jërëjëf Assane xam nga bi ñu gënee nekk xale da dañu nekk rek après ñu naan daal waaw dañuy dem ci dëkk yi am na koo xam ne bu la sangatee nangam ñu dem ci dëkk ba bi ñu demee egg Euh, ñu ngi ko yóbbaaleel mburu yu lax yooyu ne dégg moom nga koy yóbbaaleel mburu yooyu ñuy takk si oto yi ci mhm. horaire yi mhm. moom lañu ko yóbbu mburu bañ fa fekk ñu di ko daggat di ko jox euh, mu koy jox waa këram ñu koy ndékkee daanaka mburu ba dafa xuur ba ñuul ci bi añ jotee ñu def euh, cere ak ndoxu xorom xóoyal ko nekk si ginnaaw làqatu di ko lekk xaw ma lu ma doon bëgg a jàpp mm. dem fekk leen fa ñu nëbbatu ma ñëw ne ñi ma àndaloon man de damay ñibbi ñu ne ma ah lu tax nga ñibbi man na leen ñii kii bu mënoon dara wala mu xamoon dara kon xanaa au moins dina def lu tax sax moom mu am mburu mu bees wala boog mu am même mbaxalu keccax wala mbaxalu jaboy waaye kii di lekk cere ak xorom kii man su ma nee dara yéen ko gëm mais man gëwuma ko ba pare encore lii ma fi gis yëpp mu koy def lislaam daf koo daf koo tere man nag man man duma ko jël duma ko utiliser booba ay booba ay xale lañu gis nga mooy mooy mooy sax xale yi dañoo amatul kilifa merci loolu mooy xale bu xale bu ndaw di dem ci sëriñ di yóbbu sa bopp xale bu góor xale bu jigéen loolu ñun xalaat ñun rek suñu génération musuñu ko xalaat ci àdduna da nga doon toog kay ba sa yaay wutali la indi la te yow sax ba nga jàngee ba pare nee nga sa yaay lii nga takk ci sa bopp bi xaraam na dindi ko lii nga takk ci sa ndigg baaxul amul lu mu la jëriñ man day wallahi azim asan am na gàllaaj yoo xam ne dama gisoon sama yaay yore ko maa ko ne yaay mu ne maa ma ne ko yaay lii lan la la jëriñ mu ne ma ah li nga xam ne sa maam xaw ma lan moo ma ko joxoon ba sama bopp bi di metti ma ne ko tax na sa bopp bi wér du ba léegi bu sa bopp bi metti aspirine ngay naan wala wala wala wala wala paracetamol mu ne ma ne ko yaay du gëm nga yàlla mu ne ma ko gëm nga moo la bind moo lay rey moo lay dekkal mu ne ma ne ko gas ko te suul ko wallahi al azim keroog la ko sama waajur bu jigéen jël gas suul yëpp yëpp yëpp ci gàlla ma ne ko yow gàllañ du mu la jëriñ loolu kon tey bu ñu demee ba mille 2021 ñu dégg ay xale di dem te léeg-léeg ñu dem ñu dóor leen fa am na ay xale yu demoon fi am na kuy dóoree Grand Yoff bu ñu demee da leen di jël xaw ma lan lay jël def leen ko nii bu ñu ñibbisee nañ toog ñetti fan duñu dox. dóor pour lan. da leen di da leen di dóor nee na jinne bi lay génne. jinne lan jinne nga xool yooyu yëpp nekk si dëkk mais loolu tamit ñu ngi ñaan suñu autorités yi tamit ñu wax ci loolu. su ko defee Assane xam nga ñaan kenn bañu ko. ndax euh, gàddaay gi nga xam ne ci la ñuy waxtaanee incha allahu taala. Mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba muy génn te noon yi yabal fa seeni délégation ci xeeb bu nekk ñu ne nañ leen yabal bu ñu demee ñu rayandoo ko ñun ñëpp dareet ji tasaaroo suñu biir ginnaaw amul xusni bi hmm. ba yàlla yabal ko ba mu def li mu war a def waxuñu itamit ne kenn du ñaanlu waxuñu kenn du def am na alquran ku nekk xam na ne day faj hmm. am na yu ñu bind suñu garabu xob yi am na lu muy faj mhm. am na ay ñaan yu baax kenn weddiwu ko mhm. yonent bi keroog lu mu muñu muñu mi ba muy génn tibb suuf sax bismillahi rahmaani rahim yaasin innaka la min al mursalin tanzilan aziz rahim litundira qawman maa unzira aabaahum fahum gaafiluun laqad xaqa al qawli ala aksarihim fahum laa yuminuun inna jaalnaa fi anaaqihim aglaalan fahiya ila al azqaani fahum muqmahuun wa jaalnaa min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan fa agsaynaahum fahum laa yubsiruun sadaqallaahu al aziim waaye nag xam nga luy problème bi. waaw la sa topp wa sawaa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum loolu mooy ñi mais yonent bi lii la jàng ba mu yemee ci fa a a'shaynahum fa hum laa yubsiruun mu jël suuf si ne leen ko wisar ñoom ñëpp ñu ne neraw. gëlëm gëlëm mu romb leen jël Seydina Aliyun jël burdaam bu vert ba solal ko ko mu tëdd ca lal ba ndax bu xëyee dénkaane ñoom ñooñu ko weddi ba ne ñu ne yàlla moo ko yónni ndax soxor. ndax dañu naan bu yàlla doon yónni lu tax yónni ñu ñun ñuy magu Quraysh sanaadiidu Quraysh ñu yónni ki nga xam ne amul waajur bu góor amul waajur bu jigéen yàlla du wax ak moom ñun ñi buur ñi la war a waxal. ñun intellectuels yi. ñun intellectuels yi comme ni mu fi xewee si dëkk bi <laughs> oustaz. Eh. Euh, waaye ku nekk boo amoon lu baax looy dénkaane moom sallallahu alayhi wa sallam nga koy dénk. muy dëgg. soo amoon keroog ba ñuy teg xajarul aswad. Mm-hmm. ba mu nee tëll bañ koy jox garaatu. Mouhamadul Amin booba du woon yonent garaatu Mouhamadul Amin mm-hmm. ba mu koy am du woon yonent keroog ba mu nee tëll ñëpp dañoo kontaan daal ne radina bi eh, xaw ma lan nuñ koy waxee ci sax nuñ ko làkkee ci arab rasulan rasulan hmm. déedéet booba nekkagul yonante keroog bi ñu xee de tabaxaatee kaaba gi hmm. ba jël xajaru aswad di ko war a posé te ñu bëgg a rayante ñoom magu xuday si ku nekk ne maa ko war a teg bay jël xel waaw léegi yonent ñu ne nag léegi kon léegi solution la ñuy wut ñu ne hmm. solution bi mooy lan ñu ne buntu kaaba gii muy baabul mu tësum ku njëkk ne tëll te bokkoo fii ci ñun ñi toog ku njëkk dugg rek ak ku mu mënti doon nañ ko jox xeer bi mu teg ko. ñu toog ba si yàgg rek gis borom ndaag lu jekk la. sallallahu borom karaw gu baax ka. sallallahu borom bët yu ubbeeku ya. sallallahu borom loxo yu nooy ya. sallallahu borom xet gu neex ka. sallallahu borom ndaak li nga xam ne bu daagoo rek. suuf ci boppam mooy yëkkatiku waaye tànkam yi du yëkkati yëkkatiku. moom sallallahu alayhi wa sallam. bi mu nee tëll rek ñëpp dañoo kontaan daal ne wallahi kontaan lañ ci kii dugg daal di jël cër bi ne ko léegi ñun de dañoo waxtaanoon ni ku jëkk a dugg xeer bi yaa koy teg xam nga jox nañ ko waaye aka gore ak am euh, li ñuy wax te daaw tawaadoo wallaay du baadoo lu luñ ko jox rek mu ne maa luñ ko jox rek nga yor say lex ne dama ko yeyoo dane déedéet indil leen ma sër ñu indil ko sër bu mag mu jël xeer bi yëkkati ko ci loxoom ne ko ci tegg daan ne péncum nàngam ñu ne labbayka mu ne borom peñ eh, ka jiite foofu woo leen ñoom ña fa nekkoon ñëpp di ay kilifa ku nekk mu ne la jàppal ci cat ñu jàpp ci cat mu ne ay wax ñu jang jang jang jang jang jang ba ñëw fi ñu war a pose xajarul aswad mu yëkkati ko ci ñaari loxoom yu tedd yooyu loxoom yu tedd yooyu daal di koy posé fa la nekk ba tey jii ñuy xool allahu akbar kon kii mooy Muhammadul Amin te boobu Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwagul moo tax ba gàddaay ga amee ba mu war a génn te mu xam ne mu ngi dem te gëmul ne dellusi dina fa gaawaat ku nekk la ko dénkoon mu ne imaam Aliyun yow de sama cousin nga yow laa gën a bokkal ginnaaw ba mu demee wuti xarit ba déey ko ndéey loo xam ne ba mu koy déey nee na ko ku fi nekk mu ne ko sa mu ne ko génneel ku nekk ci néeg mu ne ko fii daal sama ñaari doom yi rek a fi nekk muy Asma binti Abi Bakrin ak Aïcha mi nga xam ne moo nekk futur soxnaam te ci loxoom la war a génne àdduna mu ne ko sama ñaari doom yi mu wax ak moom secret ba bi mu waxee ak moom secret bi Abu Bakrin keroog la kontaan ba ronkoñ ji di tuuru mu ànd ak moom foofu nag lañu ne wa man yatawakkal ala llaahi fa ko yonent bi wàkkirluwul rek toog tam tëdd di nelaw di xaar yàlla yónnee ko alburaq pour mu dem gàddaay dafa wuti ku ko dimbal ñu dajale alal wut masha allahu taala ku leen di won yoon ba wut ku leen di yóbbu lekk moo tax ñu ne réussite bi jëkk am ci lislaam nga xam ne ci la ñu datale gàttu jullit ñii di am ci ci ci ci euh, ci euh, at yi nga xam ne moom la ñuy wax ñun suñu at te mu war a jeex dans trois jours tey muy ajjuma bi si mujj ba tax ñu ciy waxtaan di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala ajjuma bii di ñëw ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëkkoon a julli ajjuma première ajjumaam ca madinatul munawwara waaye tamit àjjuma ba ca mujj fa mu ca la mujjee julli lundi mardi mercredi lundi ba dellu si yàlla moom ko ñuy ñaan borom bi subhanahu wa tey ku julli ba pare boo jullee tàkkusaan ndax diggante boobu ak timis am na ci waxtu woo xam ne loo si ñaan nga xool li nga def yëpp nga def sa rétroviseur sànq wax nga ne xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu anta an tuxaasabu càmbar leen nañ càmbar suñu bopp xool at mii liñ ci def yépp lu neexul yàlla tey buñ julee tàkkusaan ba pare ñu jéggul ko hmm. di ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla ba mu nekk suñu dernier vendredi amiin yaa rabbal ñaan borom bi subhanahu wa taala at mi liñ ci def ci ay rëcc-rëcc ak li fi am ci ay mitit li fi dee génn àdduna ñu leen di jaale di leen ñaanal yàlla yàlla may leen ñi tëddandi nekk ci diggante xaraaratul mawt yàlla leen fa yàlla génne dundal leen te yàlla may ñu raxas suñu xol ci caaxaan raxas suñu xol ci njaber raxas suñu xol ci kiñaan raxas suñu xol ci naafeq raxas suñu xol itam ci rëy raxas suñu xol ci soxor raxas suñu xol itam masha allahu taala ci defe ne yow yaa gën ñëpp wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuqa suqa nafsihi fa ulaika humul muflihun benn da doon am ñu koy jiiñante di ko di ku nekk di ko yéene sa moroom léegi ku nekk yaa ngi bëgg fii noo fi deewee wala noo perdre sa heure ba keneen jël ko yaa ngi bëgg directeur bu nekk adjoint baa ngay jokkorlu yàkkamti mu dee wala mu ñu dàq ko wala ñu kole ko motif ba nga remplacer ko wujj wu nekk yaa ngi ñaan sa wujj wi dee wala mu génn àdduna ba nga desee jëkkër ji doom yaa ngi ñaan bàyyi yàlla na teel a dee sam papa kañ lay dee ba ñu mën a donn mën a jot ci alal ji comme ça seetam bii nga xam ne moom la jël yëkkati ko teg ko suñ ko ak suñu rakk yu ndaw yi ñu mën a jël alal yi Assane loolu ñaata la fi ñaata la fi ñaata il faut yooyu nag ñu dindi ko il faut loolu ñu xool inna allaha laa yu yuxayiru maa bi qawmin xatta yuxayiru maa bi an anfusihim alaaji Assane firil ma aaya boobu jërëjëf jërëjëf Seyda Euh, si euh, wax dëgg yàlla leçon bu am solo bi nga xamante nii tënk nga ko euh, ndax comme li ñuy wax rek gàtt na si ay kàddu waaye yaatu na loolu si ay maanaa indil nga ñu gàddaay gi yonent bi sallallahu alayhi lañ say jànge bu njëkk mooy nit fexeel foo nekk nañ la wóolu bul wor bul trahir lu mu metti metti li ko xale yi di waxee bul cànc maayu wóolul yàlla rek yonent sallallahu alayhi noonu la dunde woon bañ tuddee ko al amin te boobu jibril alayhi salaam wàccagul si moom jox ko mission bi beneen bi mooy nit boo amee sa nit mu wóolu la fexeel ba lu mu metti metti bu sofaan di am bu mu jógee si yow <laughs> loolu moom mooy dëgg daay faral di wax ne nit ku ne war ngay fexe ba boo xoolee sa nawle doo sëgg <laughs> doo ruus doo am gàcce te loolu do moo doxoon muy jàmm ak loyauté ak mbaax moo doxoon ci diggante suñu radiyallahu anhu tax mu ñëw si moom wax ko la mu ko wax bañ ànd jóge Màkka dem Madinatul Munawwara beneen bi mooy li nga xamante ne nii doyloo yàlla wóolu yàlla keroog bi yonante bi sallallahu alayhi wa di génne Màkka di dem Madinatul Munawwara la mu fa def yëpp muy bopp yaasin ñu jàng ko fii léegi yaakaar naa ne la say nekk sa ay njariñ keroog yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu léegi nag bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne moom la ñu génn war a duggaat jóge si 1442 incha allah war a dugg si 1443 mooy li nga wax rétrospection lañu war a def xool ñun fi ñu jóge jéego yi ñu def ak lan ak lan ak lan lañ fi def kaay ma wax la nag Seyda. <laughs> ku ne xam nga loo def ak loo deful. wallaahi. ku wéet xam sa bopp. waaw ku wéet. balil insaanu ala nafsihi basira. basira walaw alqaa maazira sa suuratul qiyaama. yàlla neen doomu aadama. buñ ko tegoon tey di ko enquête di ko laaj moo gën a xam li mu def ak li mu deful donte la sax dana indi ay excuse naan lii bi ma koy def li moo taxoon li nàngam li nàngam waaye ku ne loo def xam nga loo deful xam ne kon nit ñi nañu delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala Seyda lépp lu yàlla digle ku ne mënu ko am na ay millions yu koy def lépp lu yàlla tere ku ne mënu koo bàyyi am na ay millions yu ko bàyyi da jéem rek xeex ak sa bakkan mooy li ma wax sànq te bakkan bi nag ni ñuy xeexe ak moom nafsul law amaara bi suu bu ñëwee defal defal defal gaawal andi nafsul lawaama bu ko def jaru ko li mu lay jiral du baax nangam sàngam diwoo ngi nii bi mu ko defee gis nga fi mu mujjee nangam nga ne ah kon yëf yi fi mu jëmee baaxul nangam alhamdulilah muy bakkan bi nga xamante ni ëllëg bu ñëwee yàlla gërëm ko moom mu gërëm yàlla yaa ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan ya fa du xuli fi ibaadi wa du xuli jannati amin yow bàkkan bu tey bu yiw bu sell bu baax bu bu tedd bi dellu sel si sa borom nga gërëm yàlla yàlla gërëm la kaay ma dugal la sama jaam yi ma soppal sama mbopp waaye itam kaay nga dugg si sama aljana kon nit ñi te ku wax bakkan wax doomu aadama <laughs> doomu aadama laay wax d'une manière générale at bi nag jafe-jafe yi bëri na trop tolof tolof yi bëri na tiis yi bëri na mais nag dafa am aaya boo tëjee sànq inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim si gàttal boo ko doon tekki da nga naan lu waay def sa bopp wallaahi waaw yàlla nee ne man duma ma fekk benn xeet benn askan benn peuple ma leen di changer seen destinée seen jëmukaay tant que ñoom jóguñu jëlal yëf yi seen bopp ma xam nag mooy sabablu bi nga doon wax ma xam ne ñii kat ñu ngi jóg pour sabablu ngir nangam am wala ngir nangam jóge fi kon naa leen jàppale yàlla daf ñu bind daf ñu ay doomu aadama daf ñu ay bayima daf ñu ay mala defuñu ay jamaadaat ñoo xamante ni mënuñu yëngu comme bant benn garab yeeg nangam sangam mais daf ñu jëf ay doomu aadama defal ñu ay ruux daf ñu ulul albaab wallaahi ñu ay boroomi xel mm-hmm. kon lépp loo xamante ni lii olof di wax mm-hmm. lu rey mag ba mu dee mm-hmm. bu dekkee daf ko war a bàyyi loolu moom mooy dëgg te jàpp naa ne lii am mbas mii balaa la de ndogaleel yàllaa ngi si de kenn werantew ko waaye itam ñun itam nañu xoolaat suñu bopp def autocritique loolu moom mooy dëgg dëgg la te Seyda bu ñu yàlla defalee li gën a jafe comme ni ñu koy waxee war nañ mën a xoolaat suñu bopp oxygène bi ñuy noyyi gratuitement ak fekkee nañu nañu nañu bàyyi kooku de xam nga xam nga xamuñu ne 10 jours yu nekk 2 millions 500 ma ne kon ñun li ñuy noyyi boobu ba léegi te kooku joxuñu benn facture benn anecdote ci li ngay ah, wax. Ah. benn milliardaire bu ma sa feebar rek. ñu yóbbu ko mm-hmm. hôpital. Mm-hmm. samp oxygène defar defar mu pare tane ñu indil ko facture muy jooy naka looy jooy santal yàlla yow am nga loo ko fayee lii day dara si yow ah nga ne fii di jooyee di jëjee mu ne leen jooy ma loolu de bi ma juddoo ba tey am naa soixante-dix ans weer ma sulee ba ñu indi ma facture oxygène. allahu akbar li nga noyyi woon. allahu akbar allahu akbar li nga xëccoon li nga génne woon mu def seen hôpital bi ñetti fan ngeen indi indi ñu facture wallaahi sant yàlla gi may sant yàlla sama xol moo génn samay ran allahu akbar sayda te bu yàlla noonu hmm. ku dund ba weer dee dina loo noyyi dañ la indil facture te da ngeen di liggéey pour fay ko hmm. kenn du toog kenn dootul toog kenn dootul toog ndax ñëpp a bëgg a dund kon bu ñu yàlla di teg la yooyu yëpp di ñu jox ñuy noyyi. di tal di fekkee. ñi jiitu yal na leen yàlla yërëm. amiin yaa rabbal aalamiin. feebar muy mbas mi wala leneen. yàlla leen yàlla defal shifa an tamma. laa yuxaadiru saqaman wala alaman. amiin wala wajaan amiin wala wajaan kon ñun ñi nga xam ne nag ñoo tal. talandi sax laay wax. talandi fekkee ndi. wax naa ko sànq si xutba bi nee naa. ñun ñëpp am na lu ñuy dàq te dañuy jàpp ëllëg. qul inna al mawta allazi. tafirruuna minhu. fa innahu. mulaaqiikum summa turadduuna. ilaa aalimil ghaybi wa shahaadati. fa yunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun. allahu tële mu ñuy ngi ñuy dàq ñëpp lay jàpp. mag moo gis muy dem boo amee 30 ans. boo guddee fan ni moom ngay mel. tële ngi ñuy dàq. ñàkk a mën a ñuy dàq. waaye dam sàjjaga ak ñuy dàq te dañuy jàpp. yàlla nee na boo ngeen kay daw dee. Mhm. mu ngi seen kanam di ñëw. dafa innahu. mulaaqiikum. da ngeen doon ba daje ak moom kuntum fii buruujin mushayyada. aynamaa takuunu yudrikkumul mawt. walaw kuntum fii buruujin mushayyada. fu ngeen ne dañ leen fa fekk kon Seyda. nañu laabal xol yi. daanaka liñ ñu cëraloon. jeex na cinq minutes moo ci des. nañu laabal xol yi. Euh, Assane gis nga itam waa Pikine ñu leen di jàll euh, Serigne Samba Sarr. waaw waaw boobu nga xam ne keroog nga itam incident boobu moo tax léegi fan yi ñu nekk xuloo wala xeex sax dafa jarul xam nga waa jooju ko doon bëmax su xamoon ni kii muy bëmax dans 30 minutes day génn àdduna Assane du ko laal ndaxte mer moo tax yonent bi waxoon ne buñ ko waxee xadiisu euh, maam Awa Siba ak ak ak Aysatu ñaa laa tax dëpp bul mer maam Awa si ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar di nuyu waale Sëriñ Jóob waaye laa tax dëpp bul mer euh, itam ñu ngi may wax léegi ne ma Abdoulaye Marega Euh, yaayam dafa génn àdduna moom tamit Abdoulaye Marega voyagiste privé la ñu ngi koy jaal di jaal Abdou Khadir di jaal waa Renefis yëpp ci turu euh, Moustapha Diong di jaalaale itam waa Capio ndax ñoom tamit ñun ñëpp ñoo bokk mbir mi ak waa kosapo ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ñu yokk ñaan gi ndax ñooñu ay boroom xam-xam rek a fa nekk Euh, di ñaanal yàlla suñu mbokk yi nga xam ne ñoo jiitu yëpp yàlla na leen yàlla yërëm euh, suñu yaay maam Yacine Diagne euh, yaayu Cheikh Abdourahmane Abdourahmane macha allah jéey hmm. mu ngi wax ne dafa bëgg ne nañu dem ci jàkka yi nee na moom su ko mënoon a sax mag la mu nga dëkk cees jaxaw caali hmm. ah, mu ne ma Seyda kon yaa maam Yacine nee na dama koy piloté dem ca jàkk ja lu ca war sax ma def ko ñu togg ay sarax wàcc ay kaamil ñaan kon yaay booy innamal amalu binniyaati yéene bi rek moo am solo te ku nekk na ñaanal moroomu jullitam mm-hmm. ndax adduwaa duwaa ul muslim li axihi ala zahril xaybi laa yu raddu mm-hmm. oustaz euh, kon maam Yacine Diagne moom ñu ngi koy nuyu bu baax di ko wax yàlla na ko yàlla fay mag la mais mag la moo xam ne macha allahu taala ku bëgg lu baax la ñuy jaale waa Pikine yëpp comme ni ma ko waxee ñoom Fatima Kane ñoom Alimatou kamara waa Pikine yooyu yëpp ndax ñoom tamit seen Samba saar mii nga xam ne sama mbokk Haalpulaar yu àll yur moomu yaafoo ma comme ni ñuy jaalee waa Dimat ñoom Soxna Abu Kane ñoom Binte Diallo waa kër euh, ñoom Karaas Kane waa Dimat yëpp seen maire bi nga xam ne mooy Gelaajo di ilimaan euh, nu mu tuddati sax euh, vraiment Abdoulaye Ilimane mm. nga xam ne vraiment démb Cheikh Oumar Anne waaw euh, macha allah taala ñu ngi koy jaale assu ñan euh, di leen di jaale di wëlbatikuwaat rek di nuyu tamit euh, Adja bu sekk Dia ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar moom it mbas mi jaaxal nañu ndax ñun ñii dañoo bëgg am 120 ans la la la wax moom nañu wax ne 120 ans la ñu bëgg Adja Nabou Dia HLM Grand Yoff madame Adja Nabou Seck Seynabou Seck Khady Samb États-Unis madam Ngom ah, ah macha allahu taala sama yaay Aminata Mbaye Adja Sagar Sall sama yaay Adja Daane Mbaye ah, mbaar yaa ngi wàcc cere tam xarit bi macha allahu taala maire Daane mi nga xam ne Assane ren maire Daane la mu defal ñu cere tam xarit ndax xam nga ne yow soxna Marème gëw ma ne mën naa mooñ aay na su ko defee sama doom Fat Bintou oh, bu bu yaayu sëñ Fallou. moom tamit toujours day dugg ci émission bi day bëgg dugg mais du yaay Serigne Fallou Mouhamed ca Thiès ñu ngi koy nuyu di nuyu borom këram di nuyu tamit euh, yaay Nooba ay dara borom cere mbuum yu neex yooyu macha allah taala xam nga man nee naa la sama waa cité ñooy sama sponsor <laughs> waa sopp na bi ma jigéen jaase am nañu membre bu bees tam ñu ngi koy wax mu dal ak jàmm ay satu waaye tamit Assu Ndiaye ñu ngi itam waa euh, Ndangaan euh, sopp na bi ndàngaan yéen a ngi préparé cere tam xarit yi euh, waaw man tamit sama wàll na ngeen ma ko yónnee comme ni ngeen ma ko yónnee toujours waa ma dem Diouf xam naa temps yi moom taloo ma ren moom dangay ngay da taaj reeru tam xarit Fatou Ndaw Ndawa macha allah taala loolu lay ñaana doom yëpp ñu amul borom kër yàlla leen yàlla may borom kër waaye Assane ñuy ñaan suñu doom yi def examen ñi nekk si bi ci bac bi waaye ñiy def itam BFM yàlla na leen yàlla dimbali ñoom ñëpp ñu am waa Tuxel ñu leen di nuyu di leen ziar ñoom euh, soxna Aysatu euh, madame Niang chef d'agence <laughs> ak Lamine ak seen euh, ya magu kër première daam soxna Marème ak borom këram Alaaji Tayiru Sarr nga xam ne sonn tàyyiwul ci jàppale doomu aadama yi yàlla na ko yàlla may fan bu gudd ak wér gi yaram askiya ñu ngi koy nuyu bu baax waaye nag nga may ma rek ma nuyu maître Tamaro sama chéri bi nga xam ne fàttewuma benn yoon Ndeye sali Diop ministre Ndella Ngom ah euh, macha allahu taala ak euh, Oumou Bayla Sow nag tey moo ma solal euh, léger bi ne ma xam naa ne tàngaay bi temps yi metti na <laughs> bay laa Sow kon jëf yoo xam naa ne sa bos bii moom xaw ma ku la ko defaral waaye bii moom heureusement am nga chance ndax kaaw nekk 15 secondes rek <laughs> ñu tàggoo ku mu bay laa sow daal moo a solal yow abulaa yàlla bu mu ko ñàkk euh, Fatima Diallo itam Fatima moo mu nekk régime maa ngi koy jaale euh, gallaajo parce que càmmiñam la gis naa démb ba tey di ñaanal itam madame ba tey dañoo joxante woon rendez-vous mais gisuma ko mais tamit may ñaanal itam Aysata mm-hmm. Aysata moom euh, dama ko programme ci imaam yi imaam yi nag liste bi nag bëri na <laughs> mais xam naa ñoom si ak ñoom Paate ñooy valider liste bi ndax moom ab imaam laa koy wutal Aysata si buuba validé dewul dara buuba sama oto bi nga mbëkk buuba Youssou Ndour buuba dafa mbëkk sama oto ba tey mu ngi may dawloo nag damay bañ nag woo <laughs> police ñu ñu def constat bi Bouba Ndour sama oto bi nga bëgg yàq ko te naan ma sa para-choc bi ba mu yàq ko du ren damaa bëgg nga defaral ma sama para-choc wax naa ko waa àdduna bi yëpp. Bouba nan la jox oto bu bees. Seyda yal na yàlla guddal fan wi. amiin amiin te yokk sutura jeeg jàmm ji si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. amiin ziar nga suñu nijaay Adja Askia. ñu ngi koy nuyu euh, Alaaji Askia. Uh-huh. Alaaji Askia ñu ngi koy ziar bu baax suñu nijaay boobu ak soxnaam Adja. waaye waaye soxna euh, kii. Ngoy abalu guma Ngoy non dina ñëw dina ñëw koy caq gis nga maa ngi nii gis nga. <laughs> ay per laa takk tàkk ngoy yow tamit yónnee ma sama caq or bi ñu jaal rek suñu benn yaay ajaan day jën fële sa yoof mhm. jaal ko njabootam gépp ndeysaan ah, ñoom ñangu ñoom caw caw mhm. ñoom euh, Assane Gueye fële sa Japon yande jeen meer bu baax la woon ku dal ko yàlla yërëm xaare ko aljana ñu ngi ko ñu ngi koy marsawu marsawu njabootam di jël njaal mi teg ko si loxo suñu tonton alaaji Assane Diène ak njaboot gi yëpp macha allah euh, ziar bu baax suñuy bàjjan Adja Diarra Seck ziar ñoom uli ñoom jam ak njaboot gi yëpp commissaire Assane Seck fàttewu ñu kenn Oumou Niass ñu ngi koy ziar di ñaanal Aïcha Niass yàlla na ko yàlla yëkkati ak jàmm si barke yonent bi sallallahu alayhi ak ñëpp ñu nekk si hôpitaux yi ba ñu delluwaat seen njaboot suñu borom sañ na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def leen di vraiment encouragé ak personnel de santé bu macha allah yàlla nañu fekke ajjuma bii di ñëw ci at mu bees mii di ñëw mais ku mën a bégal sa njaboot nga bégal ko ku mën a am na lu ciy war bu ñu ñëwaatee àjjuma bu ñu yàlla mayee fekke ak tal di dinañ leen wax lan lañu ñu war a def ci tam xarit bi incha allah taala ci koor geeg yi nga xam ne ñu ngi koy waxte bi daala ak yi nga xam ne mooy sunna bi incha allah taala soppe deux secondes waaw Mariama Thiaw Yoof waaw eh, yaayam Adja Kolle Mbaas Ndoy incha allah Bader seen yóbbante ñëw na suñu yàlla mayee fekke ak tal dinañu leen wax lan moo ciy sunna ak lan moo ciy bidaa ak itam géej gi nuñ ko war a xare buñ ko xaree itam nuñ koy ñëwaate waaxiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi way nuyu waa Rési yëpp di kontaan ci ñoom di leen wax ne gaawantu leen nag dugal ko ci macha allahu taala ñëpp a ngi koy xaar ci macha allah ci internet bi waa xiru daawaana ani alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala